ci mbirum euh, assainissement manam selal ak setal ci bir kër yi gis nañ né so jëlé réew tax yi ci région de Kaolack ñom ay djégo yu mag def nañ ko ci ci assainissement en milieu urbain fi ñu amé problème nga xamné ne Kaolack ci région yi nek ci ginnaw la bok ci Sénégal moy li ñu wax assainissement en milieu rural da ngay gis ay kër yu bari yo xamné yi yii sax na way amu fa léegi ma wax ne normalement kër soo ko defaree gaanuwaay dafa bokk ci kër gi kenn warula a xaar ne gaanuwaay gouvernement mooy ñëw di la ko defar waaye gouvernement bi ak président Macky Sall bi mu gisee ne loolu dafa faible ci Kaolack mu jël benn programme boo xam ne bii à vingt cinq mille latrine maanaam ñaar fukki junni ak juróom ci ay gaanuwaay yoo xam ni dañ ko jagleel région de Kaolack pour def ko pour ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu dimbali leen pour ñu am latrine yooyu waaye loolu liñ ci jublu mooy mu ñaax ñu ñaax kër yëpp pour que gaanuwaay ñu suturluwaay ñu def ko ci seen kër parce que loolu dafa bokk aussi ci set ak ci sellal mais programme boobu ci at mi incha allah dana démarrer danañ ci waxtaan ak autorité administrative waxtaan ci ak maire yi ak ñi ko war a seq yëpp